أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء alayhim salaatu wassalaam ñoo ngi ba tey ci istuwaaru yonent yàlla Shuaybu alayhi salaam ñoo ngi toll tey ci dars bi nga xam ne moom Shuaybu mu ngi leen di ubbil buntab tuub yaftahu lahum baaba tawbati wal maghfira ginnaaw ba mu leen waaree jubanti leen soññ leen ci ñu jaamu yàlla ñu féttirlu taxaw temm won ko ne ñoom faale wu ñu diine gëmunu yàlla moom Shuaybu mu ngi leen ubbil buntab tuub ak jégglu summa yaftahu lahum baaba tawbati wal maghfira wa hum fi muwaajahati al azab wal xilaak jamono ji nga xam ne mbugal jublu na leen ak alkande ndax képp ku jaamuwul yàlla moom sikk nekku ci ne na nga yëg ne mbugal nga jàkkaar lool ak meru yàlla subhanahu wa taala ak alkande ci jamono jooju nga xam ne mbugal moo jàkkaarloo ak ñoom ci la leen ñaanal yàlla pour ñu tuub pour ñu jéggulu waaye mbokk yi yamul rekk ci jéem leen ubbil buntab jéggulu ak tuub waaye wa yutmiuhum fi rahmatillahi wal qurbi minhu bi araqil alfaazi wa ahnaaha moom Shuaybu mu ngi wax ak ñoom di leen xemmem loo di leen bëgglu yërmande yàlla ak jege yàlla mi ngi koy wax ci ay baat yoo xam ne baat yi dafa ëmb lewet ak ñeewant mi ngi leen di wax ne wastaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ngalawaay yéen samay mbokk yéen samay nit ngalawaay jégglu leen seen borom tuub leen dellu ci yàlla xanaa xamu leen ne sama boroom rahimun waduud day jéggale day yërëme waaye ku ñeewante la ñeel jaam ñi xoolal xoolal baat yu nga xam ne Shuayb bu mu ngi koy utiliser ak ñoom ngalawaay yéen samay nit jégglu leen yàlla jégglu leen sama boroom tuub leen dellu ci moom ngeen yëg ne yàlla loo def rek lu muy bari bari ci ay bàkkaar soo paree pour tuub rek delluwaat ci moom yàlla moom pare na pour baal la say bàkkaar nu mu mën a toll loo mën a def soo paree pour jellu ci yàlla pour tuub yàlla pare na pour baal la ak bàkkaar yi lu mu mën a toll nag même bu tollee ne vague gi géej même bàkkaar yi bu feesoon ba bëgg a daj suuf si soo paree pour tuub rek yàlla pare na pour baal la wa hakaza yatuufu bihim fi majalati al izati wa tazkiri wal xawf wa tamci laalla qulubuhum tuftaxu wa taxshau wa taliinu Shuaybu dañul ndeysaan di wër ak ñoom ci domaine waaraate façon waaraate bu nekk sooy bu jéem cee jaar façon fàttali bu nekk sooy bu jéem koo def façon waar bu nekk sooy bu jéem koo def façon tiitalaate bu def bu nekk fa sooy bu jéem koo def waaye façon xemmem loo pour ñu bëgg ndax lan la alla qulubahum tuftaxu ndax seen xol yi ubbeeku seen dënn yi mën a ubbeeku seen xel yeeg seen xol yi mën a gis lim leen bëgg jubal ndax xol yi mën a toroxlu xel yi ak xol yi mën a dellu ci borom bi subhanahu wa taala lii ni benn méthode la boo xam ne kuy jàngale danga koy jéem olof yi dañuy wax ne sébb bu tax a tàkk nu ne nañ koy jaare maanaam booy boyal këriñ bu tooy nga koy boyal wala matt yu tooy nga bugg koo taal tàkkul ndax da ngay taal benn yoon almet tàkkul rek nga dem ne dafa tooy yenn saa yi da ngay dem ut ñax bu wow uti këyit ut essence ut pétrole nga topp di taal di taal di taal di taal yenn saa yi sax nga taal fukki brin fukk ak juróom ba mu egg ñaar fukk ngir da ngaa soxla safara te matt a ngi nii waaye matt yi dañoo tëx tàkk nga fexe ba mu tàkk nit tamit booy waar nit ñi boo leen di woo jëmee ci yàlla doo ñëw benn bis rek nga ni yàlla nee na gaa yi ñu ne ñoo bañ rek nga dem tëdd na wax naa pare naa ci ngay jaar méthode bu nekk yoon wu nekk ci ay façon langage ay waxin comme ni ko Shuaybu alayhi salaatu wasalaam defee waaraate na fàttali na tiitalaate na xemmem loo na loolu yëpp ngir lan ngir xol yi mën a ubbeeku ndax xol yi dañoo tëju te xol bu tëjoo dara du ci dugg bu gémmiñ tëjoo ndax dina am lu ci dugg bu nopp tëjoo ndax dina am lu ci dugg bu bët gëmmee ndax dina am lu muy gis naka noonu mbokk yi su xol fermé woo dara du ci dugg kon yàlla bu yàlla tëj sunuy xol walakin alqawmu kaanu qad balagu min fasadi alqulubi wa suui taqdiri alqiyami fi lxayaati waaye nit ñam doon waxal tolloon nañ some qad balagu min fasadi alqulub toll woon nañ foo xam ne ñooñu seen xol yi pour mu baaxaat ñooñu la yàlla naan summa qasat qulubuhum fa hiya kalhijara aw asaddu qaswa yàlla nee na am na ci doomu aadama yoo xam ne am na ci doomu aadama yoo xam ne yenn saa yi dañuy dem ba seen xol yi mooy gën a wow xeer am na ci doomu aadama yoo xam ne seen xol yenn saa yi mooy gën a wow xeer xam ngeen xeer a taarifu na xeer xam ngeen xeer xeer dafa wow wala dafa nooy dafa wow wala dafa nooy am na xolu doomu aadama yoo xam ne moo gën a wow xeer su doomu aadama yeggee foofu ci mbon nag kenn mënul too dara ñii nitu Shuaybu yi foofu lañ tolloon eggoon nañ ci mbon seen xol yi dañoo wow eggoon nañ ci ñaawteef amatuñu woon benn valeur benn jikko benn jom bu ñu denc nitu Shuaybu yi seen gis-gis sax xam nga nit nit su yàqoo ay xalaatam day nit su yàqoo xalaatam day nit bu yàqoo xalaatam day yàqu xelam day yàqu xolam day waxam day ay jëfam day yépp ay yàqu moo tax nit ku yàqu baaxu saa yoo gisee nit kuy def lu ñaaw rek lu bon rek ça veut dire que xol bi moo yàqu loolu moo tax lu bon lay def waa nitu soyibu yi mbokk yi foofu lañ tolloon mooy lan ci def yu bon tahdid wa waid wa baada kullu hada nusi ginnaaw waa laaye biir bi yépp soyibu laaye bi laaye leen biir wa shafaqa ak ñeewant bu mu leen ñeewant parce que ay nitam lañ fa ida bihim yaqumuuna wa yuhaddiduuna soyiban ndeke ñoo xoola waa ji mi ngi ñëw naan leen istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ngalawaay yéen samay nit jéggalu leen dellu leen ci yàlla ñoom ñu naan ko soo ñu moytuwul léegi ñu rey la kaña nga fi màgg kaña nga fi jàng kaña nga fi juddu kaña nga fi juddu kaña nga fi màgg kañ nga fi jàng yow xale bu ndaw sunu kanam jékki-jékki rek naan ñu yàlla nee na léegi ñu rey la qaalu ya shuaybu ma nafquhu kasiran mimma taqulu wa inna lanaraaka fiina da'ifan walawla rahtuka la rajamnaaka wa ma anta alayna bi aziz gaay ne ko yow shuaybu yow yonent yàlla Suayb yow daal li ëpp ci li ngay wax ñun comprendre ñu ko ñun daal xamuñu li ngay wax sa wax ji dafa bëri ba ñun mënuñu koo comprendre maanaam loolu dañ ko wax ci anamu doyadil ko ala wajihil istihaana ci anamu doyadil ko yow li ngay wax ñun dégguñu ko nga wax ba pare taxaw ne yàlla nee na yonent bi nee na ba pare ñu ne la pare nga ne waa ñu ne li nga doon wax ñun dégguñu ci dara parce que da ngaa waroon wax ci ci diw soo ne woon diw nee na de macha allah mais yàlla nee na dégguñu li nga wax waaw loolu ñu ne ki la koy wax daf lay wax pour doyadil la pour tuutil la loolu lañ ko wax wax ba pare ne jaamu leen seen borom jéggal leen ko ñu ne ko yow li ngay wax ñun comprendre ko yaa Shuaybu ma nafquhu kathiran mimma taqul li ngay wax ñun comprendre wuñ ci dara xamuñ ko wa inna la naraaka sax fii naa daifan ñun sax gis nañ la yow amoo fi benn doole amoo fi benn pouvoir la quwata laka amoo kattan wala izzan fii ma baynana amoo benn teddaange boo xam ne mu ngi suñ digganteeg yow ñun gisee wuñ la koo xam ne sax xëy na sax kooku mun nañ koo ragal ba bañ laa def dara wala mun nañ kaa rus ba bañ laa def dara kon nag moytuñu walaw laa raxtuka la rajamnaak bu doon mbooloo mi nga àndal ñii nga xam ne ñoom ñoo la topp ñoom nga waar ba ñu topp la bu fekkoon du ñoom law laa jamaatuka la qatalnaaka ramyan bil bil ahjaari fekkoon du sa mbooloo mi danañ la duur ay xeer ba nga wow kongu dee mais am nga sens da nga am mbooloo ñoom nitu soxayibu yi lan la ñuy wax soxayibu lan la ñuy wax soyibu lan lañ bëgg a wax soyibu bu doon du sa mbooloo danañ la rey moom déggal lum leen di tontu allahu akbar moo tax mbir yi du mbiru mbooloo mbir yi du xaalis mbooloo mun nañu bëri lool est-ce que am nañ njëriñ benn benn waykat ndeysaan dañ ko ne inna naasa qad jama'u lakum tey ngeen dee nit ñaa ngi jaba nit ñaa ngi dajaloo pour ñëw ci yow mu ne ana laa ubaali bi jam'ihim li anna kullu jam'in muannasin yéen yàgg yéen nag eggagu leen foofu ndax foofu naxu la naxu man faale ma benn mbooloo ndax mbooloo moo gis rek ay jigéen lañ ku ku am doole doo dem di wuti mbooloo ku am mbooloo doole doo dee mbooloo da ngay ñëw rek def li ngay def waaye koo gis mu naan xaar leen ñu xaar mbooloo mi am wóoluwul boppam ñëw leen mbooloo mi ñu ngi leen di xaar wóolu woo sa bopp boo wóoloo sa bopp doo xaar mbooloo doo xaar kenn laysa alfata man yaqulu kaana abi inna alfata man yaqulu ha ana za jàmbaar du ko taxaw naan ana sama papa nañ xaar ba sama papa ñëw nañ xaar ba papaam ñëw kooku du jàmbaar jàmbaar moo ko xam ne naan maa ngi nit taxaw maa ngi nii waaye eh mu ne xaar leen waa nañu xaar ba sama papa ñëw kon yow doo jàmbaar Shuaybu bi ñu ko waxee mbooloo déglul moom lu mu leen tont ñoom xalaat yi ñu koy xalaatal oustaz wool sa copain bi ñu ne ko wama anta alayna bi aziz ay lasta indana bi makru bi mukarramin wala muhtaramin hatta namtaniu min rajmika yow day wax dëgg yàlla yow Shuaybu ci ñun daal nekkoo fi ku tedd nekkoo fi ku tedd ci ñun nekkoo ku tedd ñaareel bi kenn respecté wu la fi ñetteel bu dul woon sa mbooloo mi danañ la jam ay xeer qaala ya qawm araxti aazzu alaykum min allah allahu akbar ah yéen samay nit ya qawm yéen samay nit araxti ndax sama mbooloo aazzu alaykum min allah sama mbooloo ngeen ragal wala yàlla ngeen war a ragal ñaar yooyu kan lañu war a ragal ah yàlla lañ war a ragal wala mbooloo mi gis nga tey bokk na ci Sénégal politiciens yi li ñuy ragale sëriñ si mooy lan lan la lan la est-ce que yàlla lañ leen ragale politiciens yi ma ne lañ lañ ragale sëriñ si yàlla déedéet ñoo la gën a xam ne sëriñ yi dañoo sori yàlla waaye mbooloo mi lañ soxla mën na ñu ñëw jege sëriñ bi loolu kese la loolu kenn du leneen parce que ñoom mbooloo lañ bëgg te ñi am nañ mbooloo ñu ñëw jege leen mais du leneen ñoo la gën a xam ne ñii ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo yem fa yàlla ñoo yem. nit kenn du ko ragale ngir mbooloo nit yàlla lañ koy ragalee yàlla subhanahu wa taala mbooloo du dara Firawna moo fi ëppoon mbooloo xoolal keroog bi ko yàlla jàppee moom mbooloom nan la leen yàlla def. fa nabaznahum fil yammi dama leen a nëqal ci ndox fa nabaznahum fil yammi dama leen a nëqal ci ndox ñu naan ba mànd bi ñoom ñëpp lab dee yàlla mu ne inna fi zalika la ibratan liman yaxsha loolu kéemtaan ci pour ku ragal yàlla ku ragal yàlla boo gisee yàlla ni mu def kii nga ragal yàlla balaa yàlla di la def noonu Shuaybu ne leen ndax yéen sama mbooloo wala yàlla kan ngeen war a ragal haza tawbix lahum ay atatrukuuna nii li ajli qawmi da ngeen may bàyyi ndax samay mbokk wala tatrukuuna nii izaman li janabi rabb tabaraka wa taala da ngeen may bàyyi ngir sama mbooloo mi topp sama ginnaaw moom ngeen tiit mais xoolu leen yàlla mi ma sàkk sàkk mbooloo mi yónni ma léeg-léeg nga dégg loolu ci Sénégal nit au lieu ñu ragale ko yàlla déedéet dañ naan ko kii de diw mooy baayam wala moom mooy diw dootuñu xool yàlla waxoon naa leen ko keroog ci weeru koor waa jooju ñëwoon marseng lan la defoon ndeysaan fàtte nañ dafa màndi woon ñu ñëw woo ñu ñëw woo taalibe ne leen ñëw leen sëñ bi ñëw na mu ñëw toog waaye daa màndi weeru koor lan la waaj bëkk néeg bi doon wax bu leen xool ci moom xool leen mooy doomi kan bu leen xool li mu def xool leen mooy doomu kan gis ngeen loolu tey benn jigéen moo ñëw école di ma laaj ay laaj ba ci yàgg mu ne ma benn benn gisaanekat benn seetkat laa indi woon sunu kër pour mu may seetal mu ne waaye yàlla dafa def gisaanekat bi bi mu ñëwee dafa fàtte dafa fàtte pettaaw yi mu ne ma jël xaalis dem marché jënd ay pettaaw ñëw mu ne mu ne ma jëndal soow ma jënd soow mu ne indi bool ma indi bool mu jël pertaaw yi dugal ci bool bi jël soow mi sotti ne ma tëj ko ci duus bi ma jël soow mi dugal ci duus bi tëj ba moom une heure de temps mu ne indi ma indi mu génne petaaw yi daal di naan soow mi commencé koo seetal soow mi ci douche bi lañ ko dañ ko tëjoon une heure de temps lu tax lu tax mu jël mu jël petaaw yeeg soow mi dugal ko ci biir douche bi waxoon nañ leen ne booy dugg ci ja booy dugg ci ja- douche looy wax law may ni awuzu bi ka seytaane yi ñoo dëkk ci dus bi kon suñu leen nee njabarkat seytaane la àndal rek ngeen war koo gëm islam day wane ne chaque jour mooy dëgg li la yonent bi di wax mooy dëgg da ngay sonn rek mooy mooy dëgg seetkat gisaanekat njabarkat ñépp ay yéeféer lañ tout le monde kuy dem ci ñoom sax yéeféer nga ma ne ndaw si yow yéeféer nga booy dee dem safara mu tiit ne ma ma ne ko yow fii nga toog nii mu naa ma ne ko yaa ngi jahannama li la terax dugagoo rek mooy deewagoo booy dee tey jii di fanaani moo tax nañ def attention nit ñi fokk ñu def attention xam ne affaire bi diine la de du ay waxi kese diine la du ay caaxaan est-ce que yéen ngi dégg nit ñi dañu war a ragal ngir yàlla waaye di la xoole nit di la xoole nit wala di la xoole mbooloo ci mbooloo sàngam nga bokk wala di la xoole askan wala di xool diw mooy sa pap wala diw nga sant xoolal tey ci Sénégal am na sant yoo xam ne boo ko santee rek yow même booy naan sàngara ku baax nga même boo dul julli yenn saa yi sax ñeme ngaa ñëw ci jàkk ñu ne la xamoo dara de ñu ne la bismillah jiiteel yenn saa yi billaahi wallaahi taala loolu nag du lislaam gis ngeen Shuayb moo koy tontu nii ne le leen yaa qawmi arahati aazzu alaykum min allah e yéen samay nit ndax sama mbooloo moom ngeen gën a ragal ak yàlla subhanahu wa taala aazzu moo gën a tedd min allah fahal asirati a azzu indakum min allahi wa akram ndax sama famille ñoo gën a tedd ci yéen ci yàlla yàlla ak famille ndax dinañ leen tëkkale tontu bi mooy déedéet wattaxastumuhu waraa z zihriya waraakum zihriya ngeen jàpp jaaltumullaha xalfa zuhurikum ngeen jël yàlla def sànni fële laa tutiunahu wala tuazimunahu du ngeen ko topp du ngeen ko màggal jël yàlla sànni fële bu ñu nee sàmba demba ngeen commencé màggal bu ñu nee yàlla wala bëri na tey ku dul ñëw fajar jàkk mais ñu woote ba ginnaaw ngin gi neew mu jaral la dox ak say tànk ba yegg te naan dund dem dee dem ñu woote ba ginnaaw tàmbaa nga dem takku nag dog di daw yenu say bagage jël sa kër sax yenn saa yi nga jël sa kër dugal ci oto te yaa ngi dégg ci oto jàkka ji bu ñu noddee doo yees doo yees sa waa kër yaa ngi ñoom ngeen ñëw jàkk julli xam nga loolu réer weesuwul loolu léegi yow ñaar ñi kan moo màgg kee ngay wuyu ji ak borom bi subhaanahu wa taala ki dégg woote yàlla wuyuwul dégg woote keneen wuyu ñaar ñooñu kan moo màgg ki nga wuyu moo màgg ci yow yàlla màggul ci yow mbokk yi Shuaybu fii la jaar ak ay nitam mu ne leen inna rabbi bi ma taamaluuna muhiit li ngeen di def yépp yàlla daf ko wër ndombo na ngeen xam ne yéen du ngeen rëcc yàlla da ngeen di sonn rek xoolal ñoom liñ koy attaqué yépp ak li ko jéem a terroriser ak di ko tiital terewul moom mu dellu virgule loolu moo tax booy wax waxu yàlla bu yeboo ne nit ñi def lu nekk yow demal nit ñi liñ lay tiitale mooy dañ lay rey kun la rey nga dugg àjjana jeex na buñ la rey rek nga dugg àjjana yow lan nga bëgg a dugg soo dee loo bëgg a dugg àjjana yow yow du àjjana ngeen bëgg a dugg buñ leen rey ngeen dugg àjjana bu leen tiit jeex na billaay ku la rey coono dong la lay wàññil jàng ngeen surtout yaasin waa ji bi mu waxee nit ñi bàyyi leen yonent yi ngeen di sonal na ngeen gëm yonent yi yàlla leen yónni وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون gaay daal di koy rey mu dugg aljana gaay dañoo yaakaar na jeex na moom mu nekk aljana di zibile naan yaa layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin nit ñi yaakaar na bu la reyee jaana yow bu la reyee rek lay wàccil coono reyee da ngay dugg aljana nga toog dootoo joxe dépasse dootoo fi nekk di julli dootoo fi nekk di woor dootoo fi nekk di jànkonteeg coono aduna wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatun bal ahyaun inda rabbihim yurzaquun bu leen yaakaar ne ñi ñu rey coono yàlla dañoo dee deewuñ de ñu ngi aljanna yàlla di leen jox bieche doore ñuy lekk aywa mu ne leen wa yaa qawmi i'malu ala makanatikum inni aamil yéen samay nit loolu nag wax na leen ko tahdidun shadid ay ci tëru leen tëkku leen walal ñoom ñu ngi koy attaqué waaye moom it taxawul benn place rek yaccaaral mu ngi wax di leen tëru di dëgëral wax bi mu ne leen i'malu liggéey leen ala tariqatikum ci yoon wi ngeen nekk nekk leen ci li ngeen nekk rek inni amil ala tariqati manit maa ngi sama yoon lakum diinukum waliya diin nekk leen ci ngeen lekk ma nekk sama lekk ka annahu yaqulu isbitu ala ma antum alayhi min al kufri nekk leen ci li ngeen nekk ci yéeféer wal adawati ak nooneel fa ana saabit ala al islami wal musaabara man maa ngi sax ci lislaam maa ngi continuer maa ngi muñ sawfa taalamuuna man yaatihi azabun yuxzihi di ngeen xam fii ak ay fan yu néew fii ak ay fan yu néew di ngeen xam kan la mbugal di wàcc ci kawam loolu moo tax mbokk yi kuy jaamu yàlla warul warul tiit warul ragal warul deltu ginnaaw warul yox yoxi demal rek maadaama yow da ngay jaamu yàlla bul bul faale leneen demal jaamul yàlla acca képp ku lay attaqué wala képp ku lay képp ku yaakaar beneen borom doole yow ki nga àndal moo ëpp kooku doole firawna bi mu jàppee jabarkat yi jabarkat yi tuub mu ne leen dinaa leen rey dinaa dagg loxo ndeyjoor dagg tànk càmmoñ dinaa leen takk ci biir garabu tàndarma yi ba ngeen dee lan lañ ko wax ñu lan la ko fi jabarkat yi wax defal li ngay def rek li ngay def yóbboo nga def ya nga yëg ne tus nga munul faqdi ma anta qaad innama taqdi hazihi lxayaati dunia adduna rek nga mën alaxira nag ñoo yow dong ñoo fayam tus nga ñu mënalul te sax ñu ngi la yëgal ne yow firaaw na sunu yaram yi nga mën a jot waaye sunu ruu yi sunu imaan yi dara nga ci mënul waaw gis ngeen loolu moo tax imaan deret moo koy garde sa deret mooy garde sa imaan balaa ñuy egg ci imaan bi fekk deret bi tuuru na ruu bi génn na nga dee imaan bi kenn du ko laal waaye bis boo jëlee sa imaan di garde sa deret musiba dal na la ndax buñ ñëwee imaan bi la ñuy njëkk a dindi te buñ dindee imaan bi rek du ñu yegg ci deret bi day fekk yow dara nekkatu fi déggu leen wax bi de dégg ngeen wax bi alhamdulillah ixwatal iman sawfa taalamuuna allazi yaatihi azabun bi zillin wa yahiinuhu di ngeen xam ñun ak yéen man Shuaybu ak yéen samay nit di ngeen xam bis bu yàlla di wàcce mbugal mi ana ñan ñooy torox wa man huwa kaadibun ana ñan ñooy fenkat yi ana kan mooy fenkat bi ay wa taalamuuna man huwa alkaadib bu fekkee dama leen di wa ngeen naan man fenkat laa wala njabarkat laa wala nangam nangam laa wala nangam wala nangam gis nga nangam nangam yooyu ñu doon wax yonent yi ba léegi loolu la ñuy wax ñu topp yonent yi léeg-léeg nga ne nit yow du ngeen def nangam mu ne la déedéet yéen yéen li tax ngeen di def loolu yéen nangam ngeen ñun nangam lañ mel ne diine bi moom dafa am ñoom nangam ak ñoom nangam yéen du ngeen def nangam mu ne déedéet ñu def loolu lu tax parce que ñun ak yéen duñu benn yéen nangam ngeen ñun nangam lañ loolu fan la ko yàlla bind diine bi benn la imaam Màkka buy julli gee ñaata rakk lay julli ñeent buy julli timis ñett buy julli taksaan buy julli tisbaar buy julli suba suba fii nag yéen seen jàkka bi ñaata rakk ngeen di julli gee gis nga benn la kële lan lay jàng alxuraan kii nekk fi lu muy jàng kële buy kàbbar lu muy wax kii lu muy wax yàlla màgg na yàlla màgg na lay wax yàlla dafa màgg def nii benn la ñëpp allahu akbar ñele ñele bu koor jotee dañuy woor wala duñu woor ñun nag jeex na benn la amul ñaar amul ñett amul ñeent benn diine kese la waaye képp ku bañ a jaamu yàlla bu mbugal mi wàcc di nga xam ne yow ci caaxaan nga nekkoon mu ne leen fartaxibu inni maakum raqib ay intaziru aqibata amrikum innani muntazirun maakum xaar leen rek na ngeen xaar résultat wu bañ a jaamu yàlla bis bu mbugal ma ci wàcc man maa ngi toog di xaar ñun nañ xaar yéen ngeen xaar ana ñan la yàlla di toroxal darsun la yunsa leçon boo xam ne kenn du ko fàtte wa huna yuallimuna shuaybu darsan la tansa la nansaahu la tansaahul ajyaal su ay boo ngi nii duñ jàngal leçon boo xam ne génération yi di ñëw kenn du ko fàtte ci àdduna lu tax ndax dars bi alxuraan moo nu ko nettali histoire bind na ko darsun laa yunsa darsun laa yunsaahu al ajyaal al mu'mina billahi wa rusulihi leçon boo xam ne génération yi gëm yàlla bu ñu jàngee histoire boobu gëm yonent gëm yàlla gëm yonent du ñu fàtte Soaybu yonent la woon alayhi salaam ndax yonent dafay am ay armée yu koy garde tontu bi mooy déedéet ndax yonent dafa am ay soldaar gis nga tey fan yépp ku sëqat rek Ablaye Wade lu muy génne ay ay ay policier ak ay gendarme ñu rey saqar rek ñu ne mu ne rey leen gaa yi dóor rey yonent yi nag ñoom amuñu woon ñu leen di garde amuñu woon ay nit yi fanaan ak ñoom yor ay bolde wala yor ay pistolet wala ay garde corps yonent yi kan moo leen doon garde allah subhanahu wa taala loo leen mere loo leen bañ bañ bañ tus nga leen mënul parce que yàlla moo leen di aar wallahu yaasimuka minan naas yàlla moo lay aar ci nit ñi amuñu woon armée amuñu woon ay garde yu leen di aar te te terewul da ngay gis nit ñi di wax ñoom ñuy attaqué tey bu ñu demee wax nit ñi mer suba ñu génnaat dem marché ba dem bépp place tey ñun bu ñu waxee bu nit ñi meree suba duñ ñëwaat boo jullee benn jàkk nga ne da ngay bayaan ñu ne la eh jàkka jooju suba boo fa rombee da nga naan doo fa jullee timis da nga naan ii paa yu ñaa nga fi nekk daa dama jaar ni wallaay day ragal Soayb moom day ñëwaat buñ ko teree suba mu ñëwaat buñ ko teree suba mu ñëwaat te amul ku koy garde te lu nekk lañ ko wax terewul moom mu làqatu ci ginnaaw yàlla subhanahu wa taala mooy ku gëm yàlla nu mu war a mel léeg-léeg sax ci dëkk bi ay nit bañ laa laal parce que dañ naan non yow yow xam nga lu tax sooy wax fii waxuñu la dara xam nga lu tax xam nga ne yow lii ngay def fii waxuñu la dara ñu bàyyi la am na ku tax yenn saa yi nit ñi ragale la parce que da ngaa bokk ci benn famille nangam wala da ngaa am benn nijaayu nangam wala benn papa nangam ci gouvernement wala ci diini wala da ngaa bokk ci famille nangam moo tax kenn du la def dara amma jullit moom yàlla subhanahu wa taala ci lay wéeru rek di def li muy def gis ngeen même ci màkk yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahabatul kiram léeg-léeg sahaaba yi ñëw ndeysaan ne yonent ñaanal ñu yàlla ñu ngi ñuy def nangam ak nangam ak nangam ak nangam nan la yonent bi wax na wax xamu leen démb dañ daan jàpp nit teg ko ci benn table jël si siye ko ba mu nekk ñaari ŋàlli te du delluwaat ci diineem muñ leen ba mbiram yàlla dikk kon diine mooy lu metti loo xam ne boo ciy dund diine yombul wala fi dañu ne soo bëggee akara da ngay ñeme kaani soo bëggee dugg àjjana da ngay ñeme jaamu yàlla ndax àjjana yàlla daf koy jaay yàlla mayewu ko kan la yàlla wax ci quraan ci aljanna inna allaha inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yàlla nee na aljanna dañ koy jaay kon yombul ba fa bëggee dugg foog nga joxe prix bi foog nga joxe njëg gi saman mbokk yi so ay boo ngi nii hada rajul allazi yuxaalifuhum ñu ngi nii di def benn étude pour pour pour terroriser ko pour rey ko lu tax ñu bu ko rey li yartaahu minhu ngir ñu noppalu nañ ko rey ngir ñu noppalu ndax solal nanu yàlla nee na yàlla nee na guddi ak bëccëg waaye moom terewul rek muy wax ak ñoom di delluwaat pour ñoom lan ñu dellu siwaat ci bokkaale gu réy gii ñu nekk mu leen di xamloo mbir mi du mbirum mbooloo mbirum yàlla la pour ñu leeralaat seeni xel pour dellu siwaat ci sunu borom subhanahu wa taala ci jamono yooyu soay bu di leen dellu si seen xel pour ñu dellu siwaat jaamu yàlla xam ne mbir mi du ñoom fiñ ko foogee dafa ne mbiru mbooloo la wala mbiru mbokk la wala mbiru am am la wala mbiru daraja la wala mbiru xeet la yooyu yëpp saa yi bu raxas ko seen xel ne leen mbir mi du loolu mbirum yàlla la yàlla mooy yónni ku ko neex tànn ku ko neex def ko yónent noonu la ma yàlla tànnee def ma yónent ma nekk koo xam ne dama ñëw pour génne leen ci bokkaale gi ngeen nekk yóbbu leen ci yàlla beneen bi mooy nit ñi tàmm nañ saa yoo ñëwee bëgg leen delloo ci yàlla rek ñu bëgg laa fàttali démb wala ñu bëgg laa xoolloo diw ne la xoola diw male moo la mag wala moo la raw waaye yow li ngay wax moom waxu loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel ba ñu xam ne yàlla rek la ñu war a jaamu yàlla xoolloo wu ñu ay nit nga xool leen sàmba wala demba yàlla subhanahu wa taala lu mu ñu wax mooy lu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu li li ñu xam ci aada mooy nit ñi bu ñu amee ku leen di aar wala ku leen di musal ci mbugal nit ñi dañuy kontaan ci kooku teg ko ci kanam bal sax di tiitaroo ci seen famille yi ñun diw mooy sunu mbokk wala diw mooy sunu papa comme ni ko bokkaalekat yi doon defee amma nabiyallahi suaybu alayhi salaam faqad araada an yaf an yufhimahum an yufhima qawmahu wa gayra qawmihi fi asrihi wa fi kulli asrin bi annahu laysa min addi min allazina yuxrisuna ala alxayati dunya wa laysa min allazina yaxshawna almawt ida kana almawtu fi sabilillahi jalla wa ala soo moom bi ñu koy yóbbu ci xeet ci famille ak di ko tiitloo moom daf leen wax ne loolu amul importance man ragaluma ñàkk ci àdduna waaye dama leen di yëgal ne ragaluma dee lu tax soo bu ragalul dee kenn waru ragalul war ragalul dee kenn warul ragal dee su fekkee dee gi dafa nekk ci ngir ngir yàlla bu fekkee dañ lay rey ngir yàlla waroo ragal bu dee yàlla tax ñu lay rey waroo ragal والموت عند الأنبياء الله ومن سار على نهجهم أمنية دي تيون يالا yonent yi ñoom ni ñu ko gisee woon ak ñi topp ci yoonu yonent yi ni ñu gisee woon dee mooy bu ñu lay rey ci yoonu yàlla yow am nga lu rëy am nga lu rëy rëy rëy rëy rëy moo tax ñoom da ngay dégg ku mel ne imaam ali keroog bañ ko rey fekk muy julli fajar ñu jam ko lan la wax fuztu wa rabbil kaaba texe naa giñ naa ci borom kaaba gi texe naa maanaa ki ko doon rey moo tax yaakaaroon ne danaan alkuna moom mu ne man texe naa parce que day dugg aljanna wax naa leen sànq ci suratu yaasin ba ñu reyee waa ji lan la yàlla wax ci quran wa qila duxulil janna yàlla ne ko duggal aljanna mu dugg di zibile biir aljanna ba mu gisee xéewali mu naan ak a neexoon ñi ma rey xam lan laa nekkee fii yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin moo tax yonent yi ak ñeneen ñi bokk ñi bu jaar ci seen yoon ñoom nan la ñu gisee dee ci yoonu yàlla mooy taraanga la taraanga la moo tax gis nga ci lislaam ku ñu rey nan lañ koy woowee shahid mooy shahid naa ñi lay rey ñoom dañuy jàpp ne yow saye saye jeexal nga non fekk yow ndeysaan yaa ngi beneen monde beneen dund bu gën a neex ak a neexoon tey ñii la rey jàkkaarloog yow ñu gis xéewal yi nga nekkee dafa am benn borom xam tudd Sayid Qutb dafa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yéeg ci fas bu weex sol yére weex daal di amaamaw fekk dañ ko tëj ci benn kaso ay at léegi nag ñu war ko rey moom guddi gi biñ ko waree rey ci fajar gi guddi gi mu gént gis yonent bi yonent bi ñëw ne ko hani an laka shahada ya sayid am nga kontaan te kontaanal da ngay shahid ci yoon yàlla mooy dañ lay rey bi mu yeewoo fajar rek gaa yi ñëw fëgg kaso bi ñu ko tëjoon cellule bi ñu ubbi mu ubbi ñu ubbi leen ñu ubbi ko mu ne leen lan la ñu ne ko dañ lay transférer beneen cellule mu ne leen déedéet man xam naa fi ma jëm ñu ne ko lan la mu ne maa ngi jëm ci yonent yàlla muhammad alayhi salaam ñu ne noo ko xamee mu ne parce que démb maa ngi moom ñoo fanaanandoo gaa yi génne ko pendre ko faat koy rey biñ koy rey bi ñuy jël buum bi di ko dugal ci baat bi dañu yaakaaroon ne dafa tiit day tiit mu ne leen bàyyi leen buum bi ma dugalal ko sama bopp mu jël buum bi dugalal ko boppam ñu ne ko waxal sa baat bu mujj mu ne rabbi inni mazlumun fantasir yàlla dañ maa tooñ yàlla nag ma fayul gis ngeen kooku li taxoon ñu rey ko tey tey tey tey la ko yàlla di doog a eggal mébétam yàlla nga koy doog a eggal tey Égypte nguur gi tey nguuru lan la islam tey la ko yàlla egg nit mën nga xeex ay at at at ay siècle mais après un jour viendra yàlla daal di sa xeex boobu yàlla daal di koy eggal moo tax yow dañ la ne xeexal rek mën nga ko fekke mën nga ko bañ a fekk tey jii gis nga frère musulman yi ñoo jël Égypte mu ngi seen lox moo tax boo toogee Sénégal dégg ñu naan ixwaanul muslimin seen pas-pas wérul yéen ñii la seen pas-pas wérul yéen ñi xeexagul ci diini ñi xeexagul ci diine wala seen pas-pas wérul mais ñi xeex ba islamiser dëkk ba kay ñooñu seen pas-pas wér na pas-pas bu wér kay mooy kii xeex ci diine mais kii ki nga xam ne moom day laqatu ak di kooku kay la pas-pasam wérul moo tax nit ñi foo ñu tey bu ñu bu ñu def farfarloo diine du farfarloo tey suñu diine bokk na ci li ko yàq mooy état yi état état di faral état état bi lu ñu wax rek nga gëm ko ak seeni borom xam-xam xam ngeen ne état chaque jour day ànd ak ay borom xam-xam xam ngeen Abdoulaye Wade am nay borom xam-xam gis ngeen lu mu bëgg daganal Sénégal borom xam-xam yooyu daganal Abdou Diouf bi mu fi nekkee amoon nay borom xam-xam ñoo ko doon daganal ay plan yi nga nangam ak nangam ak nangam chaque jour noonu la borom xam-xam am na borom xam-xam yoo xam ne nguur rek la ñuy nguur nguur nguur la ñuy wala monument bi monument bi day ngeen fi ay borom xam-xam toog télé di ko di ko défendre ne baax na. kon nekkul ne chaque jour rek borom xam-xam yenn yi loo dégg rek ñu ne dagan na rek nga nga nangu ko. surtout surtout bu ñu lay iftaa ci yenn yoo xamante ne ñoo gën a xam ne du dëgg day teey gëstu di liir di jàng bul weddi ma nga jàng mbir mi ba nga xam dëgg la wala du dëgg yàlla yàlla def suñu dégg ak topp incha allah ba àllarba bii di ñëw ñu yeggal dars bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu